assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau yi nuyu jalan. leen ziar leen te tamit dañuy suñu recette bi recette bu mucc ayib bi dañuy def bu am salade am eh, frite pomme de terre léegi jën bi lañuy jël jën bi dafa neex firiir dafa neex ceeb neex na macha allah léegi lii lañuy mariner bi day am kaani sofia kaani bu vert boobu kaani salade oignon ñu am nyari feuille am sable, am ginger ñu am laaj yu bari macha allah moom lañ koy mariné léegi tracé naa sama pomme de terre day am salade am tomate am bagage yu frais yooyu sauce bi tamit lii moo ciy dem day am poobar am paprika am moutarde am vinaigre am euh, masi arom day am tamit benn limon macha allah léegi damay dëbb nokkos bi ni euh, roof bi ko defee ma ñëw daal di mariné incha allah jën bi léegi dobu naa marinade bi def naa benn kuddu curcuma ben kuddu tamit xorom bu ndaw sha allah léegi dama ñu dal def tuuti bi ma ñu dal def tamit euh, tuuti arôme masi arom ko bugul tamit man nga ko amé mom lay def nonu ko defé defar sama marinade bu bu tok bu mucc ma sha allah def tuti vinaigre aussi waaw jën bi bala neex daal day day saf marinade ma def poobar léegi ma defee poobar bu pare ma def euh, tamit paprika bi waaw paprika paprika bi tamit euh, kii bu neex a neex la ba pare dafa baax macha allah léegi damay ñëw daal def tuuti diwlin bu ko defee ma mélanger ko ma ñëw daal di ko daal di def sama marinade incha allah daal di sama jën légui def na déwlin tamit léegi dama koy mélanger ni ba mu euh après ma ñëw daldi di daal mariner sama jën inshallah allah bi dina neex lool marina dal day safal jën bi wa légui damay def ben limon bi ma la woon sànq xaaj bi lay jël def ko ci marina bi beneen xaj bi ma daal ko def ci jën bi inshallah allah di leen jaajëfal bu baax a baax baax tenen eh, welcome back ci scène bi macha allah suñu jën baa ngi ni dañ ko ñu daal di marine mais avant loolu dama koy def eh, limon dama jël limon daal nal ko ci bu baax baax baax xorom na ko tracé na ko moom gis nga mom da tracé na naturellement bi sax macha allah bu jën bu neex féeréer la neex na ceeb nag aussi jën bi daal loo loo ko def rek man na ndax jënu tubaab la jënu jën bu tubaabee la allah laa ko mëna léegi dama koy def ci diggante trace yi bu baax a baax ba nga xam ne da koy dugg xam ne da koy dugg bu baax macha allah comme li ma doon wax rek maa leen di jaajëfal bu baax a baax baax gagné ci seen bi nuyu naa leen ñi dellu si waat tamit aussi maa leen di nuyu bu baax a baax baax di leen gërëm bu baax di leen sant waaw di kontaan di ñoom bu baax a baax baax waaw gani tamit aussi ñi abonné wut ñu ñaan leen gars yi abonné abonnement bi c'est très facile da ngay laal bouton bu rouge boobu rek laal cloche bi bu ko defee gars ñoom dañ lay notifier tout le temps ma dugalee sama recette incha allah waaw loolu moom c'est très très facile bouton bu rouge boobu rek ngay laal <clears throat> daal di <clears throat> abonné incha allah léegi ñu nekk si suñu marinade bi ba tey eh, ñu ngi marine suñu jënd macha allah jënd moom dafa neex dafa neex na traitement même boko ko mariné wul nga mariné ko ni tamit ah <clears throat> day am solo <clears throat> pardon legui daal ma ma ma marina dal jën bi inshallah ko defé ma saaf ko instant bi yow bu la neexee man nga ko lak ci fourno nga lak ko sa fourno tamit day neex instant bi tamit mën nga ko lak sa four tamit batay day neex sha allah waaw waaye ñun tey dañuy def suñu jënu firi dañ koy saaf noonu ci suñu ren ba mu ñor daal di ko kii léegi ci diggante yi daal nañ koy marinade dina na fexe daal dugg ci diggante bu baax baax a baax moo tax ngeen gis moom mooy dugal affaire bi noonu bu baax baax ci biir bi tamit aussi nga xam ne eh, jën bi daal après boo ko saafee ba pare macha allah boo koy xéwlu moom beneen affaire lay nekk beneen affaire lay nekk incha allah léegi marina bi gis ngeen ma maa nah, ngi nii de tayalewu ma ko dama koy marina nah, ba mu kontaan dama koy marina nah, ba mu <laughs> toog Wow, allah waaw jën dañ koy mariner ginaar dañ koy mariner ndawal tamit aussi dañ koy mariner bu la neexee tamit maa ngi ko bañ a mariner ba eh, tey di nga am lu neex macha allah mais marinade bi tamit classe la ci léegi rek naa sama bool def naa déwlen déwlen bi saas na ma léegi def naa jën bi léegi dama ñu saaf jën bi di saafaale pomme de terre bi en même temps pour liggéey bi gaaw nga xam ne dina suñu ndogu dina teel a pare macha allah wala suñu reer waaw noo ko mën a tuddee rek léegi jën bi mu ngi ni commencé na ñor après ma ëlbati ko mu ñor ma seppi ko incha allah léegi mbokk yi seppi naa jën bi ñor na seppi naa ko léegi dama ñu togg sama sos, waaw pour gagner du daal moo tax filmé ma yooyu yëpp macha allah léegi eh, sauce bi tamit soble si ak. ah marinade bi ma dese woon sànq si jën bi moom laa def ni incha allah léegi dama koy def noonu ma continuer ko nga xam ne ma bañ a def leneen tamit aussi waaw. waaw bu la neexee instant bi tamit mën nga dolli nokkos genre yooyu pour mu gën a saf daal mais man lii daal marinade bi neex na ma nii bëgg naa muy yem noonu daal ci sauce bi tamit aussi macha allah ndax marinade bi marinade bu classe la waaw bu royal la waaw neex na torop moom tamit même nga kii noonu macha allah dafa neex astuma na nga daal ko def si sa sauce ni nga beneen affaire nga am incha allah def naa tuuti diwlin tuuti diwlin laa def waaw bañ euh, diwlin bu bëri bi daal lay bañ waaw diwlin bu bëri bi lay bañ ci koor gi daal moo tax ma def tuuti diwlin yéen a ma gën a xam macha allah waaw diwlin moom sawaruma ci bu baax a baax a baax baax noonu na yem rek daal na yem rek mhm. léegi moom lay def nii bu ko defee ma daal di bàyyi mu def ay affaire am parce que kanam ma ñëwaat xool. waaw mbokk yi soos bi ñor na ba tey gis ngeen diwlin bi lu mu ndawoon ndaw sax ba tey eh, kii génn na ko tey yëpp macha allah léegi dama koy ñëw daal di segg encore une fois dama koy segg waaw ma ko seggee ba pare ma daal di ki daal di ko seppi ñëw daal di yàq waaw incha allah léegi daal dama koy ñëw daal di seppi segg ko bu baax a baax baax ma bañ ko tayale waaw ma segg ko bu baax. gis ngeen diwlin bi ba léegi des na ci biir des na ci biir waaw léegi dam koy segg noonu eh, daal di ko kii kontaan naa torop torop torop torop ci yéen macha allah ci ànd bi ngeen ànd ak man tout le temps waaw tayalu leen benn yoon xaddiwu leen benn yoon saa yi ma dugalee daal macha allah maa ngi gis nit ñi sawar di seetaan aussi di partager waaw kontaan naa trop abonné tamit ñu ngi yokk macha allah maa ngi gën a kontaan bu baax a baax baax di la ñaan mu gën a yokk rek waaw ñu partager famille yëpp ba ñëpp jot si incha allah waaw ba ñëpp jot si ñëpp xëj nañ ci macha allah affaire bu yaatu yaatu la ñëpp mën nañ ci xëj macha allah waaw léegi ba tey waaw gis ngeen léegi sama euh, kii pare na taaj naa lépp macha allah. léegi fruit baa ngi noonu suñu jën baa ngi noonu xoyom <laughs> macha allah soos bi tamit aussi waaw salade tamit macha allah waaw décoré ko lépp daal bu baax na léegi instant bi man naa ko taaj bu ko defee ñu xéwalu bu baax ma yëkkal ko sama abonné yëpp yëpp yëpp yëpp ci seen bi nuyu naa leen bu baax yëkkal naa leen ko waaw gan yi yëpp yëkkal naa leen ko macha allah maa ngi bu baax a baax baax len ziar macha allah waaw di ndokel ñëpp ci koor gi macha allah dina wax ramadan mubarak waaw kay macha allah kontaan naa xamna dal benen ni recette dina ñëwaat benen recette incha allah recette yu baax yi amna ko fi dina ñëw ak recette yu bëre bëre bëre incha allah recette yu bëri tamit ñi ci seen bi ku nekk man na dugg ci biir seen bi dal seetaan ba sa xol sedd incha allah